salaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel fii ci Dakar instant ak Dakar midi tey ñu doxantu ba fii ci Soumbédioune Soumbédioune nag buñ ko waxee mooy bërëb bi nga xam ne fi lébu yi daje jaaykatu jën yi nappkat bi jëndkatu jën bi kay waas maanaam lépp loo xamante ni day jóge ci géej day daje fii li waral suñuy tànk tey fii mooy tawat gi nga xam ni ñu ngi koy dégg ci biir géej gi dakaar instant ànd ak Dakar midi ñëw doxantu fii ci Soumbédioune ngir saytu loolu ndaxam naka la ko mool yi dundee naka la ko jaaykatu jën yi dundee naka la ko population bi nga xam ne ñooy nekk fii ci Soumbédioune di fi bàyyi seen waar naka lañ koy dundee li def mooy dañuy ànd ak yéen dugg ci biir gars yi waxtaan ak ñoom ñu wax ñu naka lañ ko dundee ba ci kanam. waaw ñoo ngi lay ziar ñoo ngi lay fay. tur bi nag la. sëñ Maam Mor Touré sama doom baay sëñ Maam Mor nga ma fekk la ci tefesu su Mbédioune mhm. tawat gi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci géej gi naka ngeen ko dundee yéen ñi nga xam ne yéenay liggéey ci tefes waaw ñun de fii la ñu nekk di liggéey di daan suñu doolee mais produit bañ déggee ba néegi wax ji sonal nañu bon donc clients yi ñuy woo mënuñu fexe ba jaay leen parce que loolu la ñu gëm te fekk na produit bi ñun ñoo ko yor investir ci suñuy million teg ko nii man li ma yor nii ëpp na ëpp na neuf cent mille mi ngi ma teg di ko génn benn benn pour nga gis ko ko jënd ndax yàq nañu client yi parce que client yi maam woo naa leen mais nee nañu ma li nga wax xam nañ ni Touré dëgg la mais ñun wóoluwuñu parce que liñ jot ci média yi moo tax ñun mënatuñu wóolu kenn quoi ma ne leen nag produit bi dara nekku si parce que comme dem ngeen tey ki ma mujj woo sax nee naa ko comme ministère de la santé woo na ni jën bi dara nekku si ministère de la pêche wax na ni dara nekku ci loolu moom képp ku bëgg jën rek war nga mën a ñëw jënd jën lii nag def nañ ko mat na daanaka semaine mënuñu gis benn client li ñu def ci suñu xaalis yëpp yàq nañ ko parce que lii boo ko xoolee bëri yi benn bu nekk mu ngi jar ay soixante quinze mille nga yor ci lu mat dix yaax yi noonu gisoo ko ko jël day doy waar day metti metti na nag mais il faut ñu muñ ko mais lii moom vraiment gis ka produit chimique dadul dem ci jën parce que jën lu ci mën a dem mooy fruits de mer comme ay crevettes ay saacum ay langous yooyu te day produit boobu day fekk suñu ko defut fi ñu ko war a def boîte yi mën na am problème mais jën bii benn problème amu ko. wallaahi la si su ma la déggee jën yi moom dara neewu ci. dara nekku ci jën bii dara nekku ci. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. tur bi naka la. Abdoulaye Yade. sëñ Abdoulaye ñu fekk la tey fii ci tefes Soumbédioune ak coow li nga xam ne xew na ci géej gi boobu ba léegi naka ngeen dundee loolu muy wàllum feebar beeg ak licence yi ñuy jaay ak yu demee noonu. ah métti na de métti na trop mais loo xam ne mënoo si dara moom ah. kay sant yàlla rek waaw ah, métti na trop wax dëgg yàlla parce que nga yow 6 heures du matin dugg si géej gi dem taqale xool luñ jàpp ñaata sax doo ko dégg doo dégg ku la ñaata ba lii fan yii passé da nga ko leen jaayee 15000 16000 mais léegi 10 000 ko mën a jaayee keesu jën dafa métti trop wax dëgg yàlla métti na trop foofu métti yàlla. koy la nga ngi fi alhamdulilah yaa ngi si jàmm. ñu ngi naka ngeen dundee géej gi ak jën yi. waay naqari ba dee client ñëwul jën yaa ngi naan fa gars yi dara namu si mais ñu jënd si jën yi ñu lekk jën yi moo gën amul benn commentaire jën amul commentaire boo dafa am personne comme jën yi pay dee ñun daal amatuñu dara ñu ngi ñëpp toog ñëpp ay borom kër lañu gisuñu table ñu fa say jën. man client ñoom si dara amul si géej gi ñun daal suñu yaa ngi ken kenn jaayul kenn yóbbu dara sa kër mën na huit jours fi mu nekk amul doon benn boo ngay jaay paas bi jënd glace ñibbi fi ministre bi jaaroon nag bay wax nañ jaaroon foofu noonu waxaat ba client yi ñëwaat si géej gi suñu gun fii ñun suñuy gaal suñuy géej gi amul mbaal ñun dañuy wasak jën yi ba sax la ñu yor lor lañu nag ay joboon lañu nag te xam naa fi mu nekk presse beeg ay gan ak rajo yi ñun ñoo ko wax ñu waa suñu gun jeex na kàkk jërëjëf yaa nga ne kan laaj kees yaa ngi nii kay xool kees yi yéen kenn jaay fi jën kenn kenn ay la Mame Fatou Diouf. Mame Fatou Diouf ma fekk la yow ci da ngay jaay jën. damay jaay jën kay. naka la géej gi demee. xanaa gisuñu ku ñu jaay gisuñu benn client suñu liggéey bi yëpp yàqu na. waaw man li wax naan dafa nekk ci biir géej gi ba waa gi Soumbédioune fii naka ngeen ko dund. ñun gisuñu dara fii ba suñu mool yi dara dalu leen ñu ngi nii di dem géej waaye jën yaa ngi nii mënuñu koo jaay. bu law doo jën itam dara newu jën yi dara nekku ñun ñu ngi ciy lekk di si di ci def lépp te gisuñu dara dara daluñu. waaw man loolu loolu de. ay waay ngir ngir yàlla. ndax su ma jëm damaa gis gars yi ñii dañoo gën a leer. gis nga ñun ñoo ngi nii namuñu dara. dara namuñu ko xanaa teg suñuy jënd di ko jaay. client ngeen nam. ah ñun daal client la ñu nam ñun. moom rek ah ñun ngi ne lu ñu jox suñu doom yi dañuy ñëw si géej gi duñu am lu ñu jox suñu njaboot sonn bay bëgg a dee jën ko jëndee lal ko doo gis ku la ne ñaata man maa ngi nii ba Kër Massar laay ñibbi barke alxuraanul karim su ma waxee kañ laa a yor xaalis doo ko sax xam géej ngir yàlla clients yi ñëw dara dalu leen ñu dañu sonn lool nag ku ñu dimbale ñu jël walloo. waaw ñu sàle ka yaa ngi boole boole Cheikh Gueye. sëñ Cheikh ma fekk la ci yow it ci tefesu Soumbédioune nga yor sa table di jaay jën tawat gi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci géej gi naka ngeen ko dundee yow waaw daanaka affaire bi moom li la suma copain yi wax rek daanaka affaire bi moom Mamour mu wax daanaka waxaale na lépp parce que affaire bi moom jën yaa ngi nii feebar nekku ci mooy la jaaroon ci ñoom ci feebar bi fanaanul ci géej gi parce que géej gi téye feebar hmm. waaw de géej moom luñ fi suti même bu dee lor du fa fanaan géej gi da koy génne. voilà donc kon loolu nekkul loo xam te ni luy continuer la suur bi mu amee moo li génn am ndogal googu na yóbbu hôpital faj leen moo li wér nañu kenn ku nekk yaa ngi delluwaat ci seen liggéey mais ñun li suñ problème mooy comme affaire bi ah média bi dem na ah, feebar am na ci géej gi jën yi kenn du ko lekk alors client yi ñun gis ñu leen ñoo ngi galaas suñu jën suñu conservateur yi. di génn par ndànk naat ñu mun ñu koo jaay donc kenn koo ci gis rek li nekk ci la li nekk ci keesam ko donc mais ñoo ngi ñaan yàlla affaire bi ah yàlla jeexal ko client yi mën a ñëw mën a jënd suñu jën yi ñu mën a jaay ah ñu ñëpp mën a nekk ci jàmm waaw loolu daal mooy li nga xamante ni moo am sëfu suñu jëm. jaraaf Adama Meng. jaraaf de moom ku ko wax ci léboo tax ñu naan jaraaf. waaw jaraaf ma fekk la ci tefes Soumbédioune nga wéeru ci gaal gi ma ñëw ànd ak yow wéeru tawat nga xam ne ñu ngi koy dégg fan yi yëpp ci géej gi ak jën yi naka ngeen dundee loolu ak gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi du musuwaat ci seytaane tawat boobu dañ ci sawar a wax parce que tawat bi jémminu seytaane la bu ci dugg du ma tayal di wax tur ku mel ni Ahmed Aidara moom moo xëy bés dégg tell rek na damm na Ahmed na mi nekk seen TV man jaraaf Adama Mbengue maa ko wax dégg tell rek na damm na revue de presse loo xamante ni maîtriser wu ko li mu revue de presse maîtriser wu ko ki ko bind maîtriser wu ko feebar bi dafa am ay sunu mbokk caaro yi yuy dem maare dem daje ak ndox mu bon ñu teg fa seen mbaal ñooñu ba ñu seddee mbaal yi ñoom ñoo ci jot am picc ba ñu si amee picc teer ilee ñu faj yi ñu négliger seen bopp ñu ne ay poutontaan la ay taabu gaal la affaire yi law am ñu mu joto wàll ñu ñëw sangu si mbeexu géej gi caaroy bi wàll ñeneen noonu la feebar bi demee mais du feebar boo xamante ne lu jóge ci géej la daa am ay ndox yu bon souvent yu am ci géej yoo xamante ne day ànd ak déchet bato yi produits chimiques yeeg yooyu di ñëw yooyu souvent day am bu bato yi def seen vidange bu tombé côté boobu nga seet fa sa mbaal boo fa seddee rek mën na la indil jàngoro. Ah, kon bato yi nga xam ne ñooy ne ci biir géej gi da day waaj bu ñu waayee seen déchets yi yow boo ci tombé da lay jox feebar. boo si tombé mën nga am feebar bi. mën nga am ay picc ay affaire yooyu parce que lu nekk ciy nekk acide bu dee da ciy nekk produit chimique bi da ciy nekk yooyu yëpp seen vidage yooyu dañ koy sotti ak huile bu dee bi day jaxasoo doon ndox mu bon léegi bu nekkee ndox mu bon day dal ci mbaal mi bu dalee ci mbaal bi dafay fekk jën yi mbaal mi jàpp day nëbal jën yi léegi bu nëbalee jën yi te jën dafay wàll dafay gaaw wàllaate bu nëbee bu nëbee soo laalee sa yaram rek day doon ay picc picc yooyu moo indi feebar bi ñun ñëpp ba ñuy xale waganañu te dañ koy faj vite fait mu jeex mais ku mel ni ay dara nag na tell rek na damm na tax ay njaboot dëpp seeni cin ay kilifa dematuñu géej ay borom gaal dematuñu géej mu ne ministre de pêche moom moo ne jën yi dafa am feebar tey mënul génne benn article bu mu ko bind mooy tooñ nañu fu tooñ yam nag baaluñu ko bu dee dafa am règlement de compte bu muy def ak état moom naka lijjanti compte politique am naka lijjantil boppam te jénnee ñu si ñun mool yi. tur bi naka la. Adja Sow. Adja yow fekk la fii ci tefes Soumbédioune nga toog ci taabalu jën tawat ngeen ne dinañ dégg ci géej gi naka ngeen ko dundee yéen. xanaa sonn rek sonn ndax boo dee père famille wala ngay mère de famille yaakaar géej di doomu mool état fayu la nguur fayu la kenn fayu la sa doole rek nga yaakaar yéen journaliste parce que yéen boo defee revue de presse ne jën ñi ma am feebar ne feebar amul amul ñi dara amu si kon ñi am feebar dafa am feebar ñii ñii naan ay ndox ak ceeb balaa ba ñu tudd ko te ñun jën yaa ngi nii bu feebaroon ñu ñooy njëkk a feebar ñun si la ñuy yëngu suñu jëkkër si la ñuy liggéey kees yaa ngi ni mu ngi nii macha allah jën bu feebaree day teet bii tefes tefes gaa ngi ni jën teeru fi bon ça veut dire jën feebaruñu ñuy ñaan nag client ñu ñëw ndax instant bi kenn jën cinq mille jën dix soo gisul koo jaay tuuf lii bu ko jaay ko gisul ko jaay. kon yéen seen liggéey fii naka la demee. xanaa yaakaar ci client yi ndax ginnaaw yàlla bu ñu jëndee jëm bu ñu ñëwulee ñu duñu liggéey ndax ñun client yi rek mooy ñor la ñu liggéey état fay ñu nguur fay ñu ñoo ngi nii semaine yàlla weer lu ñuy tudd ëpp na ay cinq cent mille. maa ngi fi. tur wi naka la. Soda Ndiaye la. yaa Soda ma fekk la fii ci tefe tefes Soumbédioune naka ngeen dundee tawat nga xam ne ñu ngi koy dégg ci biir jéeg yi yéen ñi nga xam ne yéen liggéey ci jën yi. Ah, tawat bi métti na métti na lool ndax ñu ngi yore suñuy produit xoolal yëpp suñuy produit la te mënuñu koo jaay ñuy wax nag ne géej gi dafa am feebar géej gi am na feebar ban feebar la am ñun gis ñu feebar ndax ñun jën yi bañ ko waxee ba léegi ñun ñu ngi jaay chaque jour mool yaa ngi napp ñun si la ñuy lekk si la ñuy naan si la dund tooñ nañ ñu nag ndax bu buñ nee dafa feebar nañ dem ci fele fele yi nga xam ne ñoom ñoo feebar ñun feebaruñu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli sant bi sallallahu alayhi waaye bu ñu bëggee wax ne ñun bu kenn jënd yi client yu bëri ñëwatuñu léegi client yu bëri ñëwatuñu waaw sonn te ñu yore produit boo xam ne ñenn ñi ngi leb xaalis jënd jën ñu jaay suñuy jën mënuñu amuñu lu luñ ko fayee xoola jën yi mënuñu am sax ku ne ñaata xoolal bool 1000 francs bool 1500 xam nga ne li yomb na mais mënuñu jaay lenn lenn mënuñu koo jaay dañoo bëgg nag pour nit ñi xam ne jën bu amoon feebar wala jën ñu poisonné ko jën bi day tëmb si kaw mais jën bi tëmbul jën feebaru jën liiwul nañuy ñëw jënd si jën nañ ko daan jëndee waaw ñun lool rek lañ leen di ñaan yàlla nañ ñëw dara du leen dal si kàttanu sunu borom dara du leen dal nañ ñëw jënd si jën yi sëdd yaa ngi nii yaax yaa ngi nii kocc yaa ngi nii lépp am na truc de mer sax am na nañ ñëw